Euh, mbokki Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara euh, di ñëw ak yéen ci waxtaan wu gàtt rek ci actualité nationale yaakaar naa ne sama naataango Ayib Daffé li mu wax doy na sëkk mënoon nañ fi yemale conférence de presse bi wala point de presse bi mais xëy na ñu sof ci tuuti rek euh, xuus tuuti ci yenn détails yi toj-toj yi nga xamante ne nii waa coalition toj-toj bëgg nañ euh, def nañ ko fi ba pare bëgg walbatiku ne kenn du ko fi leerale laataa loolu nag dama bëggoon a saluer liggéey bu mucc ay bi nga xam ni commission nationale d'investiture def na ko ci présidence su Ousmane Sonko. waaye ànd ci ak mbooleem responsable Pastef yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew yéen journalistes yi biir na ma ne umpul leen ñeneen ñi ñuy defaree seeni list am na fa liste boo xam ne bañ koy defar sax am na ñaari leader yu commencé woon xeex bañ àttale waaw eh, lu leer la nag te ñun dañu togg réunir président Ousmane Sonko wax ñu ni mu xalaatee ne noonu la ñu war a demee ci élection yi coordonnateur départementaux yi fa nekkoon yëpp daan na ñun li ñu defal ci tànneefu Bassirou Diomaye Diakhar fay président de la république doy nañu sëkk mën nañ laa bàyyi nga defar liste bi mu ne déedéet nan def nañ ko daan defee doxal démocratie na baas bi proposé kon ñu delloo yëf yi bi base bi proposé fu ñu am consensus ñu indi proposé ne nii la fu ñu amul consensus ñu indi lépp def PV bi teg après commission d'investi def investigation yi mu def ba tànn ñëpp nag mënoon nañ nekk valablement ci liste yi waaye xam nañ ne 165 député la ñu soxla ba tax na ku tànn di nga am loo bàyyi waaye may wax rek ni. bu ñu réere mbukk mbir li nga xam ne mooy ay principe bu parti Pastef mooy ñun ñëpp ku ci nekk am na foo mën a liggéeyale parti bi am na foo mën a liggéeyale réew mi waaye kenn du xëcc ci mbir ba mu jaral la nga ci ñaaw ba tax na xëy na tànneef yi dina am ñoo xam ne amoon nañu yéene teewal seen askan ci fee nga xam ne mooy pencum ndaw ak considération yi nga xam ne yëpp dinañ ko xool te ku xool liste bi nga xam ne mooy listu Pastef les patriotes nga xam ni Sénégal gëw ma ne mës na fi am liste boo xam ne am na qualité bii nii ci choix yi mooy représentation géographique bi sociologique bi waaye surtout les minorités les différent corps socio professionnel maanaam aspect yëpp lu ñu jël mais dafa am beneen aspect bu ci am solo mooy responsable locaux yi ñoom la ñu wax ne yéen yéen a gën a xam li xew seen gox yéen ay ñëw jëluñu fii ay nit parachuté leen parce que dañuy voté ci dëkk sàngam waaye comme ni ngeen ko xamee mooy dina doon assemblée bi nga xam ne xëy na moyen d'âge bi mosu fi am ndaw yi dinañ ci teew bu baax a baax a baax a baax donte mixé nañ ko ay ay mag yu am valeur kon askan wi am nañu possibilité am président bi gën premier ministre bi fi mas gën ak assemblée nationale bi fi mas a gën te ku xool mbir mi ni mu demee nga xam ne jamono ji li ñuy waxtaanee mooy ndax 140 150 wala 160 la ñuy am waaye majorité moom alhamdulilah bu élection di am rek te bi yoon dina am ndax ka daan toxal élection yi moom tal na leneen di naan gumba tal na leneen lu dul tëbiteen ba tax na ñi fi nekkoon doon tamante dëmm doon tëjante doon rayante doon exilante ak ñi nga xam ne dañ doon xaar deuxième tour ndax bëgguñu ànd ak système bi walbatiku ànd mais jamais le jeu en tout cas euh, politique n'a été aussi clair et tranché désormais ñaari camp rek moo am gis nga élection yi mënoon nañoo def rek tànn ñaari bulletin Pastef ak la ca des opposition maanaam parce que ñoom ñëpp dajaloon nañ ñoom mënoon ñoo def benn liste mu jeex parce que ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi caxat caxate alalu askan wi yamuñu ci di dóor askan wi di tëj yamuñu ci di exiler askan wi yamuñu ci installé benn terreur boo xamante ne nii kiy génn sa kër sax yaa ngi xalaat ndax di nga ñibbiwaat xam nga dañ naan sénégalais dafa gaaw a fàtte mais li fi xew yépp je pense que bu presse bi jékki woon sax def euh, rétrospection rek wala rétrospective dinañu xam ni Sénégal bi ñu doon dund y a de cela mois huit mois jëm kaw ak Sénégal bi yàlla ak yàlli la le président Bassirou Diomaye Diakhar fay dafa ñëw indi lu yes pex loo xam ne ñëpp nangu nañ ne loolu lañ nekk di doxal ni jub jubal jubbanti réew mi nag fekk nañ ko ci anam yoo xam ne jub bi moom du problème ndax yàlla def na ñi ñu teg ci bopp réew mi ak ñi ñu tànn ñu jub jubal bi tamit amul problème fa ñu dajee coono gu métti mooy jubbanti bi ci fànn yépp nag ndax xam ngeen ne lii chef de gouvernement bi wax ak ñi mu àndal ci affaire u endettement bi ak yu ni li mu ci waxul moo ëpp foofu te ministère des finance ak yeneen ministre yi dinañu génn càmbar ko pàcc par pàcc bu ñu lancé référentiel bi ba pare les ministres ku ci nekk di nga génn wax ci sa secteur pàcc par pàcc pour ngeen comprendre niveau bi bi ñu toll actuellement ci réew mi boo balaa maa dee nag ñu ne waruñu ko wax parce que dañuy tiital ñeneen ñi mais ay kàcc ak i fen ngeen baal ma ci kàddu gi moo ñu dugal ci guute gi mooy yàgg nañ leen wax ni da ngeen di yee chiffres yi wax leen nit ñi dëkk ñu bañ te ñun bañ ko doon wax doon joxe ay chiffres te chiffres yu ñu mës a joxe kenn mësu dindi waxuma laa nag léegi nag ñu sommes les détenteurs de ces chiffres la kon ngeen war a xam ne lépp luñ ci génne lu leer naññ la képp kuñ ci woo tamit pour nga leeral xamal ne dossier bañ lay tegal moom xaw ma lan waaye doo ko teggi parce que nag Pastef loolu la mës a wane avant muy yegsi ci pouvoir rawatina nag tey jii mu yegsi ci pouvoir moo tax ngeen gis opposition bi di tëb di daal di yuuxu ak haine bi mooy d'abord ñi nga xam ne ñoo yoroon caxat caxatee alal bi waaye mooy ba pare seen yéene yëpp moo nekkoon faagaagal président Ousmane Sonko waxuma la ba du nekk candidat waaye xëy na ba du amati njariñ ci àdduna waaye tamit am lenn ci opposition bi loo xamante